mais sëñ Fallou nga fàttali ñu tamit kër suñu baabu njëkk yi. waaw ñaari kër yi boo ko gisee. Mm-hmm. maanaam góor yow sax mën nga cee tontu. parce que xam Malika dem demoon ñaari dëgg da mm-hmm. dëgg la loolu bokk na si nga xam te ne moo ko war. li mm-hmm. bu tontit raison la waaye. li ko war ci dëgg-dëgg ci zahir. noonu la demee. dëgg la boo xoolee gii. ñu ngi amee woon kër ñoom Maguette Thiam ku ñaan suñ maam maam Ndiassé mbay moo ko mayoon murid mhm. mu nekkoon kër wet ko ñu màgg ci am fu ñu naan kër Fall mhm. loolu maanaam foofu la nekkoon mhm. mag ñi mbokki taalibe yi ak seen pas-pas ak seen dëggu ak seen bëgg sëñ tubaa xam ni fii dafa xat xaju fi murid xaju ñu fi yàgg boobu xale yoon nan fa parce que bari ñu woon waaye xam na ni mbiri sëñ Tuubaa ni muy dox amul tànk ginnaaw tànk kanam la am dëgg la ñu ne fii day xat ñu yàlla dogal ñu weccee ko ñu wecce ko fii ñoom maam ak fi ngeen dëkk mhm. Baye Jim Ndiaye di ko ñu jënd ko mhm. boole ko lu leen bàyyi ma loo abal leen foofu mhm. ñu fa defoon fa mbaaru lu naan mbaaru murit moo loolu moo tudd moo indi turu mu murit ñu nekk fa ba mu yàgg ñu gis ñi fii tamit sëñ waa tànk amul tànk ginnaaw tànk kanam la am ñu ni kon fii day xat si lañ ko weccee tamit dem fàggu pàkk bële waaye yaakaar naa ni tamit ku pàkk bee ko ko xool xam ne gis nga ci sëñ Tuubaa bu baax a baax xam ne mag tamit amoon nañ vision bu baax parce que fee na mu toll mhm. ak bañ ko wecceeku mhm. buñ ko bëggoon ci jamono ji néew moo duñ ko am de mhm. ndax sëñ Tuubaa moom na lu ne waaye waral istog loolu mooy daan daan tool di si def loolu lépp laajee suñ mbokki suñ magi taal bi fi nekkoon ku demee ni Baye Mour Diouf ay Baye Seexu Caam euh, ak ñi demee ñoon dañ lay wax ni noonu la daan demee chaque année ñu woo benn jàngkat mu defe na ay jàng lu am dugalaat ko si biir kër gi ba ñu ñu ñëw nekkaat ci kër gi liggéey ma noonu daal mooy hmm. historique kër gi nga xam ne kër gi voilà macha allah communication lay bëggoon nañu am chronogramme bi bis moom hmm. huit commencé hmm. diwaane commencé bis bi daal bëgg na ñëpp teew jànkat yi commencé diwaan commencé parce que dañ koy def par diwaan waaw diwaan ah, lan mooy diwaan diwaan maanaam ay boo xoolee dana arxuraan ji fii leen koy tegee hmm, ku mel ni imaam Modou Diop jiite ko hmm. dafi am na xasida yoo xam te yi nga xam ne xasaayit mu xayat bi hmm. ñu ber leen ni wala yi nga xam ne ay salawaat la ñu ber leen ni nga xam te ni ñuy jàng bu ne maraax yëpp ñuy jàng maraax féete fii ñuy jàng muxadimaat féete fii ñuy jàng mafaatixul bashir féete fii kon en même temps ñoom ñëpp dañuy àndandoo di di jàng di jàng di durus loolu wutewul tamit ñi nga xam te ni kuréel yi nga xam te ni yëkkati ak ñi nga xam dañuy rajas maanaam njàngu kenn nit mhm. ak ñi nga xam te ne dañuy nga xam te kuréel gu jub mhm. génn kuréel ñëw toog ah, macha allah dañ ko boole tamit ak waxtaan kat mhm. koo xam te ni bala ñoo ñaan dañuy waxtaan ci parrain bis bi mën nañoo xam waxtaankat boobu sëñ Jil Abdou Khadir Samb la Jil Abdou Khadir waaw waa fan waaw sëñ moom mu ngi Lamp Fall TV Lamp Fall moo nekk Lamp Fall TV macha allah waaw moom mooy def ci waxtaan bi nga xam te ni dañuy waxtaanal ci parrain bi ki ñu ko tuddee li tax ñu tuddee ko wax ci ay jikkoom mm-hmm. ak ñu doxal ci mm-hmm. loolu dina ci wax wax tamit mm-hmm. comme ni ko imaam defee lekk ci xasida yi ak njariñ li maanaam foofu daal loolu daal mooy bis bis jàpp ko nag ba jant bi so dooga ñaan yeewee ko ba déwén loolu daal mooy bis bi di ci woo bokki taalibe yëpp woo mbokki jullit ñëpp mhm. xam naa bis bi daal bisub sant la bisub jaamu yàlla la mhm. niñ ko waxee niñ koy waxee ni ko imaam waxee léegi ak bisub berdeel ak bisu berdeel ñu fee ne ngome ñu fee ne waaw waaw ak faaleen yeeg ñangeeni <laughs> ñoom bisu berdeel waaw noonu bis bi daal mu ngi noonu macha allah macha allah macha allah imaam Fallou kon nag imaam ñu ngi ziar di di di di wàcceeg sunu kàddu foofu